tey lañ koy tabax tabax suba jeunesse bi ngay tabaxal. absolument est-ce que mën nga concevoir que ñu woo jeunesse boobu ci violence ci yàq dëkk bi. man duma invité jeunesse ci violence ci yàq dëkk. te ku koy def loo koy wax. ku koy def di woo jeunesse bi dans la violence di yàq dëkk je vais lui dire waruloo ko def. fa nga cay yem. waruloo ko def te jeunes yi ma sensibiliser leen parce que pour moi sa question bi xam nga lu tax mu am solo suñu ndaw yi dañu soxla prise en charge dafa mel dañu jirim li tubaab di wax orphelin gis nga orphelinat boobu man laa bëgg a régler parce que jàpp naa ni sama kàddu am na ay ndawu Sénégal yu koy dégg te bu ma waxee ak ñoom gëm naa ne diñ ko dégg diñ ko comprendre. lan ngay wax parce que li may wax jeunesse bi loo mooy nañu fonk d'abord yar jàng xam-xam nañu ormal mag ñi. nee na mag ñi yërëm ndaw ñi keroog ci lancement Demain c'est maintenant dema ne duma sànni xeeru ndaw ñi mais duma sànni xeer mag ñi ma yem ci li ma leen di invité ku ci nekk nga xam lii sa responsabilité li la war ci sa réew xam nga ku tuddee mouvement am te ni ma ko waxee mu am ambition am gis-gis ci réew mi demain c'est maintenant parce que boo waxee demain nga wax ndaw li ñuy wax ci xale moom mooy avenir xale yi ñooy ëllëg réew mi rax ci dolli li ñuy gën a dégg maanaam suñu réew yi ñooy l'avenir du monde maanaam ëllëgu àddina bi bitim réew lay jóge soit ci américain yi ci chinois yi ci français yi walla ci russe yi lu ko waral c'est parce que dañu jàpp ni li ñu am ci ay ressource maanaam koom-koom alal kenn xamul ñaata la toll te ñoom daanaka daanaka li ci bëri presque ñoom dañ ko exploité ba mu ngi waaj a jeex wala sax bu waajul jeex ñu ngi ko denc pour ëllëg que alal bi fii la nekk loolu moo waral nga gis les chinois les russes les américains ak ñeneen ñu ngi bëgg reyante fii ci Afrique man ma jaakaarloog les sénégalais ma ne leen moytu leen kat ëllëg boobu ñuy wax tey tey la door na première chose deuxième chose demain c'est maintenant ne suñu indépendance bu ñuy ndamo tàmbaliwul 1960 suñu histoire gën naa xóot que 1960 gën naa sori que 1960 c'est bien avant suñu maam muy jàmbaar yi mais muy suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi muy góor ak jigéen nag am na lu ñu bàyyil ci ay valeur nañ ci dellu si nañu dellu si suñu cosaan xam suñu bopp balaa ñuy gëm suñu bopp boo xamul sa bopp mën nga ne gëm sa bopp mais boo moytul du dem foog nga xam sa bopp lu tax tout le temps ñuy joxe en exemple les chinois les américains ak ñeneen ak ñeneen on sa se rend pas am na benn question fondamentale bu ñu régler te ñun régler guñ ko mooy identité nationale yaay kan yow boo taxawee ne man sénégalais laa ndax xam nga yaay kan ndax xam nga ni lii jomb nga ko lii jomb nga ko mooy la vraie solution par rapport à la jeunesse bi ngay wax jeunesse bu ñu la invité ak fu mu mënti jóge nag ñëwal reyante ñëwal yàq ñëwal saaga boo xamee sa bopp am na loo xamante ni doo ci topp mais bu ñu yem foofu boo gisee ne ma ni jeunesse bi xale yi dañu jiriñ la question de l'emploi xale yi amuñu xëy. désœuvrement. désœuvrement te ñu toll ci plus de 70 pour cent de la population sénégalaise à la limite dañ lay dañ leen bàyyi à eux-mêmes président Abdoulaye Wade moo doon wax ci campagne électorale. ñi amuñu liggéey nañuy yëkkati seen loxo gëm naa ni président Macky Sall moom mooy njiitu réew mi bu waxoon xale yi ñi amul liggéey nañu yëkkati seen loxo c'est évident que l'écrasante majorité dañu yëkkati seen loxo je ne suis pas nihiliste nag tabax réew munoo wax nit ki deful dara président Macky Sall puisque moo yore réew mi tey am na lu mu def j'entends souvent te loolu ànd naa ci en grande partie son bilan matériel est élogieux mais dama ci yokk leneen tabax na lu bari mais am na lu mu deful mooy tabaxandoo. tabaxandoo mooy tabaxandoo tabaxandoo d'abord jikko yi la république sénégalaise elle est malmenée sànq li ngay wax nii yépp c'est parce que elle est malmenée. comment. pour ne pas dire elle est abîmée xoolal li xew assemblée nationale keroog. dañuy installer la quatorzième législature. c'est un exemple parmi tant d'autres te le mal est tellement profond que bu ñu moytuwul. c'est pour ça que je dis moi j'interpelle le président de la République. parce que garant du bon fonctionnement des institutions bu moytuwul loolu mooy law ba dugg biir pale am na lu ci fa commencé dugg. dama fa commencé dugg. mais des comportement anti-républicains. c'est-à-dire soyez plus précis non les comportements mais combien de fois tu n'as pas entendu nit ñi di xeex pale walla ñuy jox leen xaalis ñuy séddoo bay xeex loolu lu am la donc pour moi. il faut que nit ñi xoolaat seen bopp politiciens yi xam ne c'est une infime minorité c'est pour ça que quand je j'entends les gens amul légitimité parce que xamul politique ça me fait sourire justement loolu lañu bëgg a combattre li ñu war a indi la rupture à travers benn république bu bees benn république bu yees ñu yeesal république bi loolu bokk na ci ay ponk yoo xamante ni commencé nañu la réflexion et dans les semaines à venir dañu génnee suñu offre programmatique sénégal mais mais balaa nga ñëw ci bi yow. donc en résumé puisque da nga ma wax xale yi. nga terminer xale yi nañ leen tenir discours boo xamante ni buy tax bu leen amal njëriñ nañ leen jar mais jar du rekk ci école. yar ci njaboot gi la yar ci mbedd bi la yar ci ñëwaat ci suñuy valeur yi ma doon